du Aly Nguer Faye di militer ci parti réew mi nekk le premier vice coordinateur des jeune de Thiès Est chargé de la vie politique waaw DVF la d'abord nga may ma ma remercier le maire Pape Bassirou Diop moom mi nga xamante ni mi ngi taal lamp Thiès ess yëpp di defaraat tali bi di jël mbalit mi ndax ci loolu lañ ko doon xaar démb dafa am demande ASC Espérance nga xamante ni man dirigeant laa fa dëkk ca ba ñu woo ma expliquer ma ni dañoo bëggoon nettoyer tali bi ndax nawet bi foofu après tali bi day am suuf ci kaw loolu ci lañ woo monsieur le maire ak demande comme ni ko citoyen yëpp di defee ñu def ko le maire Pape Bassirou Diop mi nga xamante ni loolu la fi nekkee mu accorder ñu ko yónnee ñu benn pelle mécanique ak ay brouette biñ koy yóbbu ñu dem ba DVF di ko yóbbu wetu kër Sirédia ñu taxaw buntu kër ñoom Moussa Diagne di wàcce bagage yi pour jox ko Famara ak Pape Ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwoon sollicité ma ci la ab ndaw génn ci kër gi muy Yéeli Diagne di sama rakk que je de passage ne ñu fii du ngeen ko fi nettoyé ñun ñoo koy nettoyé ma ne ko yéen ñooy ñan mu ne ma ñun partisan Sirédia yi ba mun jur coow lu rëy ngeen ñëw nekk ay témoin mais ñi ngi santaat ñoom démarche bu ci def parce que ñoom ñëw nañu wan nañu carrément du ñoom ay xale lañ kenn santu leen ko ndaxte Serif Dia woo na ma nee na dana def dem démenti wax ni yónniwuñu kenn xale yi ñoo ko defal seen propre gré mais ñuy ñaan waa Kër Siré Dia di ñaan waa APR dëkk bi ñoo ko bokk kenn moomu fi dara Thiès waa Thiès ñoo ko moom su kenn jugee di def nañ ko jàppale ba mu réussir ndax sama buntu kër ñoom bañ fay indi poto damaa génn may leen ndox bu ñu gasee poto bi ndax dafa dëgëroon te mënoon nañ koo def mais dañoo njëkkante def ko ak ñun yéeg ne danañ fa def làmp ñoom ñu ñëw ma rafetlu ko remercier leen ci bindu ci ak action yi ñuy def yëpp donc su la maire Pape Bassirou Diop day def liggéey bu toll noonu yaakaar naa waa kër Siré Dia war nañoo am yar am dal ba ñu liggéey ko terewul liggéey nañ ko defar nañ ko ci jàmm jeex na parce que mënuñ ci dara mais du rafetlu aussi monsieur le maire Pape Bassirou Diop li mu ci def police naroon na ñëw lépp ñëw mu ne ñu ànd leen ak rek ñoom mënuñoo tere ba di ngeen ko def donc xeexoo xuloo nañ ko yemale seen biir parti ñoom ak waa Thierno Alassane du ñun ak ñoom. waaw mënuñu koo jàppee dellu ginnaaw parce que ñi ko def ñan lañu loolu mooy am solo ñi ko def mooy waa kër ja Sirédia ja ca koñ ba la dëkk ma dëkk ca koñ ba. ñoom dañoo jàpp ni dañ leen di xañ seen teraanga ji ñuy am ci Siré Dia te teraangay yàlla moo pu doole yi nit loolu kese la réew mi moom am na doole amul doole loolu wane nañ ko lu ñu xëccoo Cees ñoo koy jël incha allahu rabbi waaw damay ñaan nit ñi ñu interroger histoire lettre ouverte bi am na lu ko jiitu muy alerte bi nga xamante ni defoon nañ ko 2015 parce que dañoo jàpp ni le président Idrissa Seck la mu defaloon Abdoulaye Wade am na équipe bu ko mën a defar ndax bi mu naan dañoo nekk ci 1-0 waaye équipe boobu dañoo jàpp ni ña ca nekk dañoo échoué te nanguwuñu ku leen wax dañoo échoué boobu ba léegi ñu ngi koy wax jur na lu ne nanguwuñu ñoo dégg moo tax nag comme que waxtaanu biir nekk am na. waxtaanu ëtt am na ñu génne ko ci penc mi dool lu ñu gënal pour ñuy wax fii wala ñuy wax fële mais mayuñu ñu cadre de concertation ndax li am réew mi ñëpp jàpp nañ ni réew mi ci wàllu communication kenn werantewul li ñu am kàngam yi ñu am mais réew mi doxul ci biir doxul instance doxul et li may wax kenn du ko weddi trois ans ngi ni cadre yi dajawuñu huit mois femmes yi dajawuñu jeunes yi mosuñoo daje au niveau national waa parti bu aspiré diriger réew noonu lay doxee lii la ñu wax tam nañ ñu dëmm tam nañ ñu lu nekk teewul li ñu wax day leer parce que dafa am lu ñu bokke boole ci réew mi muy honneur justice liberté Idrissa bi mu ñu recevoir ñun ndaw ñi daf ñu am ñetti baat yu mu ñu waxoon bi ma génnee ma ne ñi ma àndal Idrissa daf ñoo sas président Idrissa safaan nañ daf nañu soyez juste soyez libre ndax ëllëg yomal xiyaam yàlla benn baat la sekk ak yéen iqra kitaabaka lii ton livre donc suñuy ànd ak moom dañ koy dimbali ci dëgg maanaam mooy équipe bi ko wër dañoo échoué nañ nanguñ dañoo échoué ku ci nekk dem sa base liggéey parce que Thiès lañu yaakaar te Thiès kese falul président de la République je commence par notre président vice-président que je salue de passage mu dem Saint-Louis Thierno bien vrai que ni dem na parcelle mais Diourbel la dëkk mu dellu Diourbel Thiès gi mu loolu lañ leen wax maanaam doxul na ndaw ñi daje na jigéen ñu daje na femme ñu daje loolu moo waral ñu génn di wax parce que li ñuy wax dañ koo jëlee ci suñu njiit muy le président Idrissa Seck suñ ko mayul cadre de concertation heure buñ ko laajee day joxe xalaatam te li mu gëm lay joxe moo tax biñ sentiree ni war nañoo wax ñu génn wax. waaw loolu mooy wax c'est au niveau national. pour Thiès aussi je pense que ni liy wàññi électorat président idrise Seck jur coow yu amoon si suñu biir rek la parce que suñu interroger histoire wax ji bari woon na te ñu ñoo fi nekkoon doon histoire loolu moo ko doon wàññi nit ñi ne ñii di xiiroo di ŋaayoo mais xolub Thiès waa boo xar président Idrissa la ci def ba tax na gis nañ taxawaay te ñu ngi ñëwaat nag parce que soo interroger Thiès Est ga ñu bokk yokkaat nañ fa 3000 voix. donc kon loolu ñun ñu ngi liggéey yaakaar naa su ñëpp defee Thiès Est li muy def président Idrissa dana nekk fu raw fa mu nekkoon en 2007 ci Thiès. d'abord mooy instance yi dox ndax parti dañ koy pencoo kenn du ko paacoo su ndaw ñi dee gisee jigéen ñi di daje ñu mën a teg stratégie bi ci gën nag mooy coalition bi ñu bokk. ñu ànd ak ñoom xam ne benn solution rek moo am mooy jàkkaarloo ki fi nekk bañ a bëgg am bëgg-bëgg personnel ñu ànd liggéey pour Sénégal solution bi ci gën nag ci parti réew mi mooy ñu woote réunion nationale des jeunes parce que jàpp nañ ni quatre-vingt pour cent ñoom ñooy jeunes yi waa léegi soo amee parti boo xamante ne dañ ne ndaw ñi am nañu xam-xam xarañ nañu bëgg nañu jub nañ te duñu daje du am njariñ maanaam ñi ngi ñaan le frère l'honorable député nga may ma aussi ma dugg foofu pour nit ñi comprendre su ñuy wax Thierno Bocoum waxuñu Thierno Bocoum l'honorable député su waxee ba pare da ngay sentir ni kii vraiment teewal na askan wi su ñuy waxaat ci Thierno Bocoum de la communication su waxee ba pare tu as assez d'arguments pour mën a défendre sa parti macha allah mais Thierno Bocoum responsable des jeunes mon ami et frère zéro ci jeunesse bi il faut que nangu ni doxalul ndaw ñi mu woote réunion mooy li ma ko proposé ci lettre bi moo proposé ko nit ñi xamaat ko dañ nañu am benn conseil national de la jeunesse loolu yomb na yaa xëyti suñ ko defee je pense que ni suñu àndee coalition dem suñu àndul coalition dem parce que réew mi Idrissa mooy yaakaaru tey Sénégal mooy yaakaaru Sénégal gàcce tiitaange ak njàkkare ndax li waral gàcce mooy suñ ciy wax suñu xol day tooy suñuy fàttali ko combat bu noble bi jeunesse bi mëne ba mu am suñu frère bu ci ñàkk bakkenam suñu ay frère mais ki ci gën a siiw di Mamadou Diop nga xamante ni da xeex pour liberte xeex pour njub ba li ko dal dal ko ay xale ku ci mel ni ñun à Thiès ñu jàpp ñu tëj ñu juróom benn weer ci kaso bi tey nguur gi fi ñëw di def lu raw la kañ daan xeexal lam daan def xeexuñu woon Ablaye Wade parce que mënul xeexuñu woon président Abdoulaye Wade parce que dañ ko doon xeex parce que dafa waxoon ni du nekkaat candidat jël doom googu suul ko ñu ne ko kàddu moo la ëpp doole yow la voix du peuple et la voix de Dieu tey ki fi nekk lam ñu waxoon dara dara dara du lum ci def nañu mooy li may wax su nit ñi naan plan émergence man leen loolu dafa sori daf ñu waxoon du romb vingt cinq vingt cinq ministres loolu dafa sori dafa waxoon ni pale sàcc nañu ba sàcc moket yi man leen loolu dafa sori daf ñu waxoon ni xaalis bàyyiwuñu ko fi te le président Idriss Seck ñëw ne ko bàyyi nañ fi ba tudd franc yi ñu fa bàyyi ci milliards yi ba ci franc yi donc ñi ñu fi teg daal xam naa ni li koy faj mooy jàkkaarloog ñoom li ñu nar le 14. taxawaay bañ daan am réew mi mës sa des ginnaaw ndax. Euh, soo ñëwee Thiès gi jàpp nañ ni ñun ci ñu jiite woon M23 bu Thiès ci lañ bokk moo waraloon mu jural ñu suñu arrestation taxawaay bu ko raw dinañ jëli le président ànd ak moom jàkkaarloog ñoom dégg naa nag démb ñu ne COJER day marche ñi ngi ñaan waa COJER yàlla nañu marche le 14 lu ci am na Sénégal ay àtte na àdduna bi àtte parce que ñun def nañ suñ demande te dara duñ teree marche incha allahu rabbi li may dénk waa Thiès mooy ñu xam ni Thiès kenn duñu ko defaral ndax ñu jëlee diggéey président Macky bi mu ñëwaatee fii ci Thiès mu ne dinaa yeggale chantier yi yaakaar naa ne fa ko président Idrissa bàyyi woon fala nekk ñu ànd bokk ndey bokku baay ñi fi nekk tamit ci gouvernement bi di liggéey ci cees ñu ngi leen di ñaan ñu profité parce que li leen dese bariwul ñu defal dara Thiès loolu lañ leen di ñaan di ñaan suñu maire yi eh, li ñu commencé nañ ko continuer parce que gis nañu le maire Pape Bassirou Diop boobu ba léegi moom ci lancé yi mu nekk barki Demba Ndiaye gis nañ le maire Lamine Diallo la mu def ca rond bu ngent démb ci sa bi gis naa fi le maire Alioune Sow mu dem di inauguré même su part bi di meer ci ñoom na askan bi bëgg ci ñoom ndax askan bi ñooy voté loolu laa leen di dénk di ñaan aussi suñu maire Talla Sylla ne ko li ñuy xaar ci moom mooy mu ànd ak le président Idrissa Seck ci élection législative yi li ñuy xaar ci moom mooy ci marche bi nga xamante ne moom opposition bi la bokk ñu gis ko ci ñu ngi ko ciy xaar loolu daal laa doon dénk waa Thiès waaw xam nga luñ ci mënti wax rek mooy rafetlu li muy def parce que ba léegi waxagul ni bokkul ci opposition ba léegi waneegul ni day dem fenn wala fenn am na droit am siège ñu ngi koy rafetlu liñ ci wax rek mooy kenn invité wu ñu ci moo tax mënuñu caa dem waaw man de kenn invité wu ma ci moo tax mënu ma caa dem.